aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu ala seydina muhammad ibn abdallah wa ala alihi wa ashaabihi wa qadimihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi mbokkum jullit di seen mbokkum taalibe Alaaji Jibi Sey moo leen di nuyu di leen siyaare nekk fii nag ci barab bu laab di masalikul jinan ci sen jotaay yi nga xamne dara tax ko jog ludul wajal bis bu mag bis bu tedd di bisub magal tuba su ko defé nak tay nu am jotaay waxtaan ak yeen jeme ci bi ak développement bu ñe développement nak daanaka boo ko doon tekk ci wolof moy suqaliku barab bo xamne xeyna dembu naatu toon tey mu naat démb suqaliku woon tey mu suqaliku jamono dox naa dox nag ba nga xam ne bu ñee développement xel yëpp daanaka ci mbiri réew la jëm ndax dafa am réew yoo xam ne ñoom la ñuy duppee les pays développés mooy réew yi nga xam ne ñoo suqaliku ci wàllu koom-koom lu ci mat a leeral la ndax fu ñu développement rek xel yu bëree bëri fi ñu jëm mooy ci wàllu koom te koom li muy am solo lépp bari ko njariñ jàpp naa ne ci roon diine ak mbaax ak yiw lay tege mënu koo sut mukk ci àddina te koom sax balaa jariñ dëgg dëgg dëgg borom borom daa am diine borom daa amuk yiw borom daa sell moo tax bu ñëwee sëriñ bi ak développement rek balaa ngaa xalaat mbirum koom-koom xalaatal mbirum pas-pas xalaatal mbirum defaru xalaatal mbirum xam-xam xalaatal njub xalaatal lépp loo xam ne jikko la bu ñuy nawee doomu aadama nga xool nag Serigne Touba liggéey bi mu ci liggéey moo tax ñu ne Serigne bi balaa moo tabax dafa tabax nit ñi ba noppi boo tabaxee nit ñi bañ defaru tabax nit ñi bañ baax tabax nit ñi bañ sell nit ñooñee nga xam ne ñoo baax defaru sell ñoom ñooy wëlbatiku tabax loo xam ne dafay dëppoog lu suñ borom gërëm te loolu neex naa gis lool ci doxalinu sëriñ bi ak i taalibeem sëriñ bi bi muy woote mu ngi ci Mbàkke Kajoor fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñoo ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat mooy sa àndandoo yii nga xam ne say dongo lañ bul yem ñoom ci njàng kese na leen yar ci yitte bis ci seen yitte yóbbu ko ci yàlla ce la sëñ bi wootee yoonu àgg ci yàlla xam yàlla ak jeex tàkk ci yàlla ba sëñ Moussa ko wax ne sëñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku sóobu ne mes bu génne xam borom waaye teg na ci wayane ne ku sàggan sànk faw te lab te doo duy doo set doo setal doo xam borom su ko defee yoon wi nga xam ne moom la sëriñ bi xàll woote ci yoonu suqali doomu aadama la ci suqaliku biir mooy biiram ngay laabal biiram ngay defar su ko defee jikko yu tedd jikko yu sell juddoo ca jikko yooyu leen nag képp koo xam ne ànd na ak yow koo koy ki suqaliku koo koy ki defaru koo koy ki baax kooku nag lépp lum tabax suñ borom gërëm ko moo tax diiru Mbàkke Kajoor ba ni sëriñ bi sancee Daaru Salaam ba ni mu sancee Touba ba ni mu génnee ca tukkeem bu rëy boobu leen ba dellu si ba yoonu gànnaar gaaraat ko fi ba ni ñëwee ci yéen Jolof gis nga ba ci njaarim ci ngay dégg ne kat yoonu murit ña ngay tabax tabax bu rëy rëy te jumaay njaareem moo tax gis nga taax yi li ko war a jiitu mooy ñi ko war a dëkkee ñu defar leen moo tax ba ci jumaa ji sax lañ cay def boo bëggee sa borom gërëm ko yaa ngi koy jëlee ca daara ja moo tax arab dañuy faral di wax ne al madaris xablal masajid maanaam da ngay dem ca daara ya jëlee fa la nga fa war a jëlee ci xam-xam la fa war a jëlee ci defaru su ko defee boo duggee ci jàkka ji lépp loo fa jëf mu dëppoog lu sa borom gërëm kon bu ñëwee sëriñ bi ak suqaliku sëriñ bi ak développement moom yoon wi mu ko jaaree mooy yoonu tabax doomu aadama baaxal ko sellal ko ba mu nekk ku am jom nekk ku am fit nekk koo xam ne dafay set wecc ci yaras yaras mooy complexe nga xam ne taalibe bi sëñ Tuubaa dëgg-dëgg boo xam ne defaru na ci biir ak ci biti làmboo xam-xam lamboo yar ak i teggin njub nekk ci moom kooku du am complexe ci kanam tubaab bi du am complexe ci kanam naar bi du wut ne danaan tubaab bi moom ma gën a jekku àdduna moom a raw déedéet du ne naar biit it moo ma gën a jekku diine ndax mooy làkk la yonent saa sam daan làkk déedéet du foofu la ñuy gënee fa ñuy gënee mooy ci xol bu sell ci xol bu laab ci xol bu defaru te ànd ak sëñ tubaab gëm ko wóolu ko doxee nu dëppook njàngaleem doy na sëkk ci sa xol laab yàllay kese nekk ca biir nga ngay jëmm joo xam ne ju suqaliku nga moom la ñuy jàng ci wàllu français wàllu développement personnel nga xam ne loolu li ci sëñ bi jàngale ci wàllu defaru jikko defaru xol laabu xol foo ko na tarag weesu na nga xam ne réew mépp bu buñ ci bokkoon tënku ci yar ci teggin ci njub ci mbaax ci defaru ci sell nga xam ne ko ci téere yi nga xam ne sëñ bi yeexal na leen xool yoon yam daan jaarale mag ñi ci tarbiya leen tarxiya leen ñu bokk fa jaar ñun ñëpp nga xool fan la réew mi jëm parce que ñoo ñooñu nga xam ne ñoo aju ci moom defaru biir ak biti ñooy wëlbati ko tabax loo xam ne lépp dafay méngoo suñu borom gërëm ba pare dafay suqali doomu aadama sax ci wàllu jëf ci wàllu nekkin ci wàllu dundin moo tax dëkkam bee nga xam ne mooy Touba boo seetloo tey dañ ne mooy deuxième grande ville du Sénégal nga xam ne ci wàllu économie ci réew réew mii di Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo ci gën a suqaliku te lépp mu ngi lalu ci pas-pas boo xam ne moom sëriñ bi moo ko jàngale sëriñ bi nekk koo xam ne ku dëppoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xoolal tey boo demee Màkka la nga fay fekk ci wàllu développement ci wàllu taax ci wàllu xarañte te moo ne diine mën nañ ne mooy base bi mooy départ bi moo tax ki yaakaar ne diine dafay tardel doomu aadama xamul luy diine diine dafa am wàllu woo xam ne wàllu jëf la wàllu jaamu la waaye noonu la amee wàllu woo xam ne wàllu yeete la wàllu xam-xam la wàllu njub la ba nga xam ne doo am complexe ci kanam kenn ndax xam nga ne yàlla la fay maye dara loolee sëriñ bi daf cee jàngale lu doy sëkk sëkk sëkk sëkk ba nga xam ne boo ko rootoon jëfee ko root ko dundee ko doy sëkk ak mbaax doy na sëkk nga développé yow ba say yittee bopp doo ko tiis kenn ndara yaa koy fajal sa bopp ndax boo seetloo ci yoonu murit dafa fokk ci philosophie yi nga xam ne yi gën a gànjaru la mooy nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla Sëñ Tuubaa daraan wax ne àdduna loo fi gis lu mu rëy rëy rëy rëy rëy la teraanga yow mal xiyaam la am Sëñ Tuubaa daan di teg ne ku bëgg sutura ak àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg teraangay àllaaxira da ngay nangoo jaamu yàlla moo tax dualité bi nga xam ne dafay dox diggante jaamu yàlla ak nangoo liggéey dafa bokk ci principe yi nga xam ne yoonu murit ci la tabaxu taalibe murit ci la war a dox jaamu yàlla te di ko seet sellal loolu moo koy garanti ëllëg goo xam ne bu fa yeggee mucc te sëriñ bi yekkal ko ci ndaam mi xam-xam loo xam ne mën naa bañ a jéggaani dara ci lépp lu mu war a jaamu borom moo xam ko ci wàllu fiq la moo xam ci wàllu tasawuf la moo xam ci wàllu tawhid la lépp luñ ci sëriñ bi war a yekkal ci ndam bi xam-xam yoo xam ne mën nañ koo jëriñoo sëriñ bi yekk na ko ku xaaraani rek yaa xamul fa ndab la féete yaa ca yoorul sa loxo bu dee xam nga fa ndab la féete gannaaw boo ci yooree sa loxo yi jëriñoo ko dana tax doo naw kenn doo ñee kenn te boo jaamoo sa borom sa borom gërëm la ca desaatit mooy ci wàllu liggéey bi ku ne gis na sëriñ bi ni mu yaree ci liggéey maam Cheikh Fall daan na wax ne a doom su ngeen deful ni man di ngeen sonn ñu ne ko Fall noo def mu ne nangoo liggéey lool te néew ay bëgg-bëgg muy kàddu gu gàtt te képp ku ci tënku mën naa dund ba dee te aajoom du ko tiis kenn kenn kenn bëri na koo xam ne yalwaani na wala xaaraana wala dugg na ci pexe la ko ko yébbee rek mooy li muy jot ci wàllu wërsëg daanaka ay yitteem ak i bëgg-bëggam daf koo suut fuuf kooku ci bor lay dëkk kooku ci pexe lay dëkk kooku ci xeeb li muy jotakus néew ci wërsëg lay dëkk donte mën naa bari sax parce que ay aajoom ak yitteem ak bëgg-bëggam daanaka dafa mëdd li muy jot par weer wala li muy jot waxtu wu nekk ci wàllu wërsëg waaye boo doyloo ci ginnaaw bu la sëriñ bi yaree yoon saa sa waxoon na ko alxanaatu maamul laa yan faru ki nga xam ne dafa doylu am na alal ju baree baree baree baree bare te sëñ Malick Bassine si daan wax ne ci mag ñi sëñ Tuubaa yar la bokk àdduna nee na doy ñëw fi li fi ñëw mooy doyloo su ko defee jikko yi nga xam ne moom la nekkee làmboo ci biiram wax dëgg yàlla fas yéene koo dundee diiru dundam kum jëflanteel mu feeñ loolu mooy nit ku suqa suqaliku nit koo xam ne léppam kanam la jëm kooku nag diir bu gàtt da nga gis yu bëree bëri yoo xam ne moo koy taxawal ci yu ama am solo moo xam lu mu tabax lay doon lu mu fàggu lay doon luy jëmale réew mi kanam lay doon te buñ bare rek bu yàggee réew mi ànd ak moom daal di daal di suqaliku waaye bu dee suqaliku goo xam ne ci wàllu koom-koom kese kese kese ak i tabax dong dong la loolu moom mën nañu ab yéeféer sax mën na ko ëpp ab julit te la ngay tabax noonu leen yàgg-yàgg di ko ko daar daara duniyaa ku ne xam ne jaaruwaay la waaye du saxuwaay loo ko développé développé développé xëy bàyyi ko fi fa mu mujj mooy ci yàqu rek ndax kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zu jaabal ikram su ko defee nag sëriñ bi daf lay yar ba nga xam ne sa cër ci àddina doo ko fàtte naam loo war a tabax tabax loo war a jënd jënd loo war a def ci wàllu yiw ci colkaak lu mu mën a doon ga def ko te jëm yàlla kese tax waaye nag sa daaru aaxira doo ko màbb mukk ci àdduna pas-pas bi mu laaj yite jim laaj xam-xam bi mu laaj defaru gim laaj it loolee sëriñ bi du yekkal na la ko ci ndab yoo xam ne boo ko jëfandikoo wee rek doo ci ñee kenn kon jaaraama Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla nañ ko yàlla suñu borom fayal waaye nag njariñ lim ñu fi bàyyil yàlla bum ñu raw yàlla nañ ci yoor suñu loxo xam ko yëg ko di ko dund ba suqaliku suqaliku goo xam ne duñ am yaras ci kanam kenn waaye it dinañ tabax suñu àddina tabax goo xam ne ku ñu xool xam ne bàyyiwuñ xel allaaxira kese kese kese waaye bàyyi nañ xel àddina ngir tabax fi loo xam ne ñay ñëw ëllëg dinañ ko mën a jëriñoo ci wàllu saayir ak ci wàllu baatin ndax li suñu kilifa gu baax sang bi Cheikh Moussa Touré di wax ne mbaax giñ fi fekk dafa am loxo yoo xam ne ñoo ñu ko téyeel ba ñëw fekk ko fi ñun ñi nga xam ne ñoo ko fi fekk nag li ñu war mooy ñu itam téye ko rafetal ko sellal ko ba ñuy ñëw bu ëllëgee bu ñu ñëwee fekk ko fi su ko defee looy nag li ci serigne bi yekk ci xéti xéewal xéti teraanga xéti yu baaxa baaxa baax baax lu bare bare la yàlla buñ ci dara raw yàlla nañ ko yek yàlla nañ ko dundu yàlla nañ ko dundé bayil ko fi nak ñinga xamné buñ ñëwé bu ëllëgee da tegu ci yoon wa rek Sénégal di gëna jëm kanam ba faw ba maasaale sax Afrique maasaale aduna bépp ci mbaaxub serigne bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Amen.